waaw euh, man li may wax souvent rek mooy euh, réforme bu ñu koy def pour am ay ay ay ay jéego yu am mm. solo la ci Dakarois yi ak Dakaroises yi wala ci commune yëpp ci biir Sénégal moom wax na ko léegi ñoom ay acteur au premier plan lañ mu wax mu évoqué acte trois de la décentralisation mm. yow def nga benn benn benn réforme évaluer guñu ko ñi ci nekk di yuuxu di jooy te loolu bamba question boobu laa koy posé c'est-à-dire que yéen tey jii bu ngeen defee évolue parce que lii tamit réforme la buy delloo ko ci beneen réforme. Euh, acte trois de la décentralisation bi nan lañ leen ko jaayee woon ak lan ngeen doon ci xaar comme avantage te gisu leen ko ak euh, tey jii sur la la deuxième question par rapport ak réforme bi nga xamante ni ñoo ngi koy ruumandaat muy par rapport au statut euh, de la ville de Dakar. tey jii au-delà du combat bi nga xamante ni foog mu parce que ay affaire entre la su le plan légal est-ce que tey jii HCCT AVM boobu war na koo mën a jël jébbal ko président de la république ñu jaarale ko ci ay yoon ba dëggal ko. loolu mënul nekk amul ci démocratie parce que tey nga def waa nga bàyyi waa Dakar def référendum wax li ñu bëgg parce que waa dakaar jàppal ni li ma bëgg nga xam mooy ville de dakaar moo moo moo mag république du Sénégal parce que Dakar am na commune avant Sénégal di am indépendance kon tey Dakar mosul am li temps administrateur de commune nga may fàttali. te loolu bañ ko passé dafa yàgg Dakar dañ ko daan cité en exemple mais tey calcul politique kese moo tax ñu bëgg ñu delloo gannaaw par force pour lan loolu lan moo ko fi wut lan moo lan moo ko fi jar bu leen leeroon ni mën nañ koo gañe du ñu indi li yëpp li ñu mën a gañe indiwuñ ci lii yëpp dañoo ñaaw njorti ni fi ñu toll nii candidat bi président nar a teg bu narul nekk candidat bu dee nag yàlla daf ko xéewale mu gañe mairie Ndakaaru wala ki gañe mairie Ndakaaru nekk militant am dañuy am ay jafe-jafe du leneen lu dul loolu pourquoi mairie ville mairie Pikine waxewuñu noonu pourquoi mairie Guédiawaye loolu ville Pikine ville la Guédiawaye ville la Thiès ville la Rufisque xalaatuñu foofu yëpp ñu bëgg xalaat dakaar ci ndung pour lan Dakar poids bu mu am ak bokkul ak yeneen mais pour lan lay pour yow. mais parce que pour man la parce que ñoom amuñu munu amuñu ku mën a gagné dakaar ci ñoom. li tax Dakar am solo soosu. Dakar nag macha allah malgré que nag wàññi nañu doole jëpp. Mm-hmm. wàññi nañu doole parce que tey boo xoolee santé rey nañ ko ba mu dee acte bi. ñoom nañu bàyyi ñu évaluer ko ñu wax leen ñun ñu koy dund ñu wax leen ci nekk man je suis bien placé pour le dire je suis premier adjoint au de Dakar. est-ce que évaluer tey Dakar fi may waxee yow maa assuré intérimu Dakar. évaluer nañu dañ ñoo dégluwul dañ ñoo faalewul acte trois bi baaxul santalu yàlla baaxul parce que wax naa la léegi ci composition bi y a des maires de communes qui ne sont plus membres du conseil municipal de Dakar et c'est ñu ni nangu nañu santé bi ci Khalifa Sall dañ ko doon tiitaroo jël sante de santé yëpp nangu ko jox ko commune d'arrondissement yi. ba pare salaire yooyu ni commune d'arrondissement yi yéen a koy fay. commune d'arrondissement yi ñun li ñu liggéey yëpp dañu koy fayee salaire parce que salaire santé dafa cher centre de santé yi ña fa nekk ñoo leen di fay jëlaat tamit école bi femme de charge yi fa nekk yëpp ni nangu nañ ko ci Khalifa Sall léegi arrondissement yi leen di fay donc santé bi ñuy jël sëf ñu ko jëlaat état civil bi sëf ko. parce que tey li naroon a am acte 3 bi mooy ne à la Médina ne à Gueule Tapée dañoo mutualiser pour mën a continuer ne à Dakar ñoom rayoon nañu ne à Dakar donc yooyu yëpp ay musiba la jur. mais acte 3 bi Pape dafa am solo te tontu woo si lan lañ leen waxoon pour vendre leen projet bu mel noonu cest à balaa ñu koy kii nag xanaa dinañ ci waxtaanee wax leen ne leen fii lañ jëm ba tax na ñu appliqué ko mais ñëwuñu ñëw rek euh, sas leen. question boobu ma ci tontu sax damay am gàcce dañ ñu koo jaayal dañ ñu da ngeen a ma rappelé leen da ngeen a fàtte ne benn veille yu màggal Touba la ñu woo député yi ñu leen dëpp leen dañuy voté affaire bi 23 décembre 2013 veille veille yu màggal la woon député PS yaa ngi rappelé am nañu braqué woon duñ ko voté il a fallu ko Tanor woote pour ñu nangu koo voté jaay ñu ñu ko dañu ko forcé dañu leen ko voté loo par force ñu voté ñu kii ko jaay ñu ñu ko dañu ko forcé mais ñun nga foog ne ay maire de commune tey suñu 60 pour cent ba 70 pour cent recette yëpp salaire lay ñoom nan eh, tey bul xas benn mais ne ko pourquoi investir parce que ñëpp ville de Dakar doon fay ca santé commune de base bi koy fay léegi ñoom doon fay ci école yi commune de base bi la ñoom doon fay ci état civil bi commune de base bi la mm. la te tamit suñu koom yokkuwul lañ daan jox yokkuwul man tey fonds fonds d'investissement 15 millions lañ may jox fonds de concours 16 millions un fonds de décentralisation communauté limite naa 40 millions te ñoom ñoo koy séddale duñu woo AMS duñu woo kenn kumba am ndey kumba amul ndey sel bii ñuy wax am na commune yoo xam ne maa la population am nañu 88 millions man 24 millions la am. Hmm. parce que Bamba dama lay laaj benn question ah c'est-à-dire que yéen bi ngeen di ñëw comme opposition à la ville de Dakar en 2009. Mm-hmm. da ngeen fi fekk président boo xamante ni aussi bokk leen woon ci gis-gisu politique. ñoo ngi ko doon évoqué léegi Aram. Mm-hmm. ngeen ñëwaat en 2012 ki nga xamante ni moom moo fi nekkaat aussi ki ki nga xamante ni moom moo fi nekk da ngeen sax contribuer pour mu ñëw nan la ñuy comprendre ngeen gënoon a am jàmm entre 2009. et, et, et 2012 que par la suite qu'est-ce qui s'est en réalité. parce que Wade n'est pas Macky Sall ah Wade n'est pas Macky Sall ba bëri na problème nii bëri na mais coté démocratie moom ku ci aay la waa ji nag moom ku àndul ak moom pour nga tekki dara dafay jafe. dañ la bundu xataan xeex ak yow ci fànn yëpp. nest pa man mi wax def nañu yóbbu nañu ma kaso ci nee nañu dama saaga tanoo dama nangam te ba tey ji dossier bi kenn xamul fu mu nekk donc yooyu moo fi am te moo fi war a jeex recul démocratique bi ku àndul ak président doo sax gouverner bu neex la ñuy séddale yaa ci gën a yéesle donc yooyu moo dootul yoon li ma la mën a xamal mooy ay ballon de sonde la te waa dialogue bi parewuñu pour nangu loolu parce que duñu liggéey bay bëgg a dee ñuy ba def seen i ballon de yooyu yabaatee la sax Aminata Mbengue sama yaay la mais waru nangu loolu pourquoi waru ko nangu tey président mënu woote dialogue national mu bëgg parti yëpp ñëw ci ba pare muy indi proposition yoo xam ne day dem ci sens investi dialogue bi li muy waxtaanee dialogue bi dafa ni la nañu delloo liste de villes yi fi amoon loolu la dialogue bi wax loolu lañu acté ñoom mm. di ci déglu président nee nañu la amoon 2009 mm-hmm. nañ ko delloowaat parce que le maire kon liste ville foog mu pour que le maire soit connu d'avance foog nga defar benn liste ville et puis quel est le problème Dakar est un département parce que quand une commune prend les contours d'un département mmh. cette commune est considérée comme un département cette ville Dakar Guédiawaye Pikine sont considérés comme des départements parce que contour département la am nañu compétence su département kon nañu bàyyi mu doon liste départementale mu des le problème de Thiès et problème euh, mais c'est ça c'est Dakar le problème. léegi euh, Aram ma collectivité locale nga yor bopp ba yow maire nga euh, nekk nga aussi ci différent niveau ci wàllu euh, gestion locale tey jii boo gisee instruments yi nga xamante ni teg nañ ko yëpp ginnaaw ambition bi nga xam président Macky Sall waxoon na ne dafa bëgg a réduire inégalité yi dafa bëgg sax territorialiser les politiques publiques ñu teg HCCT indi ko ak coow li ci amoon yëpp dialogue des territoires mooy mbir mi ki yor bën Benoît sàmb ñu indiwaat euh, li nga xamante ni moom mooy. Euh, AMS AMS ak ministère bi ministère bi nga xamante ni moom mooy collectivité territoriale instrument yooyu yëpp tey yi sooy évaluer ban jeexital la am concrètement ci collectivité locale yi. amul benn njëriñ tey budget ACCT bu ñu ko joxoon maire yi ñu def ci ay réalisation loolu dëgg HCCT mu jàppal ni pour dugal seen i la. yow HCCT ah. yéen a tax ñu defar ko ban njëriñ la am ci ci ci ci yow par exemple. non ban amuluma njëriñ HCCT su ma gis kayit bu ma bind wala fu ma dimbalee wala fu ma intervenir ci man man na ma doon dundee ba may liir ba léegi la sama commune di dundee ba nëgë ni HCCT sentir ma ko fenn li Benoît Sambou yor sentir ma ko fenn AMS sax li mu yor pour ñu sentir ko problème la fan nga am problème ba mu taxaw la ban fan nga am problème ba mu taxaw la amul. mais tey exemple euh, Yaoundé la ñuy joxe ak fu mel ni Abidjan nga xamante ne maire ba dañ koy nommé par décret. ñoom doon naa am gàcce trop ñu joxoon na exemple États-Unis wala Londres wala fenn. moom ah, nañu dikkee ci suñu wewu tànk yi. waaw bu ñu daan jël exemple dañu daan jël exemple fu kawee kawee tey ah bul fàtte ne Dakar moo nekkoon capitalu AOF. Hmm. dakaar dafa mës a servir d'exemple en matière de politique et de démocratie tey ay Yaoundé ngay jël exemple Yaoundé non gàcce weesu loolu. aram franchement aram franchement bal ma. mais gis nga Afrique francophone su fekkee ne da nga bëgg a def ay jéego rek ci ñi ci jot a xam ni honnêtement matuñu ay exemple muy Yaoundé muy Abidjan du ñu ay exemple ci côté boobu France bi nga xamante ni foofu la ñuy miiré woo à chaque fois gis nga fi mu ci xeex bu métti la ñu nekk pour pour la ville de Paris comprendre kenn ku ci nekk di wax ci wàllu programme loolu mooy dundal démocratie exemple Yaoundé kii moom nañu jàpp ne bu fekkee ne loolu lañ nar a jox comme élément de langage bu ñu ko joxee comme élément de langage de ah, mhm. parce que dañoo avancé de trop en matière de collectivité territoriale ah dañ ci daan joxe exemple am ci ay consultants parce que ñun xam-xam bi ñu ci am ñun sommet bu ñu dem bu ñuy wax bu ñuy wax barki yàlla dañuy déglu parce que dañoo jàpp ne Dakar moom en matière de collectivité locale vraiment ay kàngam lañu ci mais fi ñu jëm toroxal ñu weesuwul loolu parce que loolu mooy lan loolu mooy mënumaa gagné naa seet sama fonctionnaire ma teg ko di ko jox ay ordre mais amul combat politique bu ngeen mën a mën a tey yéen pour loolu. ah mais non attendez mënoo mën benn combat parce que ñoom fi ñu toll nii. ci ballon de sonde la ñu toll officiellement waxaguñu. te man li ma gëm mooy Macky Sall warul yëpp ñin ñi parce que warul dajale parti politique yëpp. dajale kilifa yëpp ni leen dialogue national sëriñ seeg ñëpp dugg si ñuy waxtaan yeggale gu ñu mu teg li mu teg loolu mënul nekk kon boobaa waa dialogue bi lu ñu fay defati waa dialogue bi waxtaan nañu ci côté boobu ba acté nañ ko ba pare ñoom nee nañu maire bi day nekk tête de liste majoritaire day am liste ville yëpp ba pare mu def comme na mu daan defoon ci 2009 loolu lañ acté teg kon tey loolu bu leen arrangé woon ballon de sonde ak mu njëriñ. loolu laa xam. alors dañuy ñëw euh, si leen loo mi am na solo liggéey euh, Soham El Wardini parce que nag bu fi xalifa euh, jógee moo fi nekk te gis nañu la nga xamante ne moom la daan fësal ci ay projet ambition yu mu am par rapport ak mairie Dakar naka nga gisee tey liggéey bi nga xam ni ne la na ko. non bokkul soo am gaa mu ngi góorgóorlu mais soo am mënu nekk xalifa Sall. parce que xalifa Sall jaar-jaaram ak jaar-jaaru soo am soo da koy wax danaan la man Khalifa vraiment am laa yëgale mais le problème c' que soo mënul mel ni xalifa Sall parce que soo am bi muy jël mairie bi boobu état bi caxat caxati nañ ville de Dakar ba dara desatu fi nangu lee à l' école amatul uniforme à l' amatul pavage bi arrêté na n' est euh, sport à l' école arrêté na santé à l' école arrêté na doole yooyu yëpp nangu nañu ko tey lan la ñuy def fay courant bi ak tout Dakar ville propre tey doole ndakaar yi jël santé bi jox arrondissement yi jël éducation bi jox arrondissement yi jël état civil delloo arrondissement yi ville de Dakar coquille vide lañ ko def dañ ko bëgg a gagné pour mayaat ko doole mais yaakaar naa ni foo faut pas que ñuy fooyee état état mooy li ñëpp bokk. état ñun ñëpp a ko bokk ka ànd ak yow ak àndul ak yow. Mm. une fois que nga nekk chef de l' état waratoo xàmmee ko bokk sa parti ko bokk sa parti mais tey li ñu fi gis li ñu naan l'homme d' état vraiment pense aux prochaines générations tandis que l'homme politique pense aux prochaines élections. te élection bii ñëw rek lañ teg seen bët mbaa opposant ko gagné pour ma wax leen wax ju leer nag Thiès mënuñu koo gagné Ndar mënuñu koo gagné Ndakaaru mënuñu koo gagné Kaolack mënuñu koo gagné Podor mënuñu koo gagné wax ji mooy dëgg. tey nag ñoom il faut comme que yi daa war a dem teg fi kenn ci gaayam yi gaayam yi ku ci a duma gaay yi moo fi newul. mais loolu leeragul ndax dafa war a dem wala déet. dina dem nag dina dem dina dem de. xam nga man duma waa APR yi ngeen di woo fii non mais waxam leeragul moom ci boppam dama ni la man duma waa APR yi ngeen invité naa leen troisième mandat ñuy daw Macky mandat bii mooy dernier mandat am waxoon na ko ci mu leer naññ ne woon na ne du ma ko répété waat wax naa ko pare su ma defee 7 ans 5 ans bi topp moo mujj wax na ko leer na nañ keroog bi ñu ko laajee tamit 31 décembre la leen wax la ma ca waxoon ndax dama koo dindi la leen wax nañ jàpp ni day dem mais nag na góorgóorlu ba bàyyi fi koo xam ne xëy na mën na yeggale yéeneem loolooy problème bi alors ñu ñëw si euh, cleaning euh, euh, cleaning day yi parce que sànq dund nga ko tamit également par rapport ak mairie yi mais fu mel ni Médina ndax projet la boo xamante ne président ba mu ko lancé defe ne casquette politique yeeg yëpp dañ ko tegee côté li ñuy fësal rek mooy fexe Sénégal mën a avancer set ba ñu ràññee ko ci dëkk yi nga xamante ne nii rafetlu nañu na mel sa taxawaay yow ngir fexe jàpp ci programme boobu lan la. xam nga au niveau national. je suis membre de l'AMS chargé waaw dama lay wax de au niveau national je suis du bureau de l'AMS chargé du développement durable et de l'environnement intéressé leen sax mosuñu ma woo sax ba ñu waaj pour ñu liggéey ci au niveau de l'AMS laay wax de hmm. int parce que maa yor question bu au niveau de l'AMS mosuñ ci waxtaan te santaan ju dara benn ñaareel lan nga seetlu temps yi ñu nar a lay clinique boobu mooy waa APR yi parce que ñoom au ñu dénk ko mbedd mi ak quartier bi ak maire yi mais responsable APR bu ne bu jotee day seet jëf ko ñoom mel ni kuy politique ñoom nañu xam ni bu ñu ci dugalee politique mu yàqu pourquoi cleaning day bu taxawee responsable APR bu ne bëgg a organiser ko ñoom noonu affaire u état la ñoom dañuy jaawle état ak parti man bu dee Médina nag ñun defuñu cleaning day ñun cleaning yéer la def at yëpp la ñuy kanam tuuti ñu dem seetaan